ay Dia mi dabbar ñi ñetti yoon Sadio Mané ñancoo ak Leroy Sané loolee bokk na ci li nga xam ni mooy ubbi li nga xam ni mooy yëglekaay yi salanrantina gonek sénégalais gi ma ngi koy toj rajax waaye ki nga xam ni moo nekk kii di seen Eumeu Sène wala Bombardier bokk na ci li tëj yëglekaay yi ginnaaw bu ngeen demee Mbour 77 290 11 56 Saloum iPhone waaw oh, téel téel jéeg rajax-rajax ji nga xam ni moom ngeen nekke woon ah, ci Saloum iPhone numéro un ah, Saloum iPhone takk na ñaareel ah, ñaareel baa ngoogu léegi dee leen wesaare ñaari place yi nga xam ni benn bi ñu ngi ko jàpp dimanche bi nga xam ni moom la ñu dëgmal sama waa ji Saloum iPhone ubbi place boo xam ni ci seenu barke yéen jëndkat yi nga xam ni yéen a ko topp jox ko loxo place boobee nga xam ni danañ ko tijji dimanche Serigne Daara Omar Cissé mi nga xam ni ci suba gi dana fa wàcc ay kaamil gars yi xam ni bu saf sàpp ak suukar lay doon balaa añ yee ñëw a fa la gaa yi yendu ñi ngi gërëm ñëpp nag gi ci woo ñi nga xam ne ñooy waa Caajaay ak waa Sanjara kamp naaw bu ngeen defee seeni commande ci 77 290 11 56 Ah, fële ca Mbuur yëglekaay yooyee ah, Sadio maane lañ koy doole moom moo nekk ci réew mi sport nga xam ni réew mi sport la moo mu xamle ah, ci xëtam mu njëkk mooy na national mi nga xam ne ginnaaw daje bi mu daje woon ak kële di la Roi Sané di ab compatriote ta maanaam ñu bokk nag benn dëkk boo xam ne kenn ki bañ na ko loole tamit daanaka ba tey mi ngi jaaba jonge ci li nga xam ne mooy yëglekaay yi ñu di ubbi yëpp yëpp te moomee xam la ne di fi mu toon ni lépp mi ngi ci ginnaawam te rëcc na ko bu baax a baax kon loolee daanaka na ko ci leneen loo xam ni moo ëpp importance muy football ngir Bayern Munich am benn victoire boo xam ni ah, bu am solo la yëglekaay boo xam ni ah, daanaka ñëw na ci li nga xam ni mooy prime spéciale yi nga xam ni ah, Macky Sall dabbar ñil na ko lien locaux yi nga xam ne fi mu toll nii bëgg nañu mën a def li nga xam ni mooy seen match yoo xam ne yu mucc ayib la andi fii ay trophée loolee jiiñ na leen moom mii di président Macky Sall Lionel André Messi a jege fële nga xam ni ah, moo nekk Salernitana moom mii di connexion ay la gay dugal na ñetti bit yoo xam ni ab triple la ba match ba jeexee ah, gars yi daal di koy yëkkati ah, jox ko li nga xam ne bal ba doon footballé ndax bal boobee mooy borom moom mi di Boulaye Dia nga xam ne fi mu toll nii réseaux sociaux yi mooy footballkat bi nga xam ni moom lañ ci gën a recherché ci footballkat yi sénégalais yi ndax tasaare gi nga xam ni mi ngi koy tasaaroo ci guddi yi nga xam ni toll nañ ko mooy tasaare waat yëglekaay bii di record yëglekaay nga xam ne yëglekaay boobee fi mu toll nii daanaka ñëw na ci fii nga a mooy sénégalais bi nga xam ne démb dugal na ñetti bit yoo xam ne moo ko dajjar ni loolee tamit maanaam prêter attention li nga xam ni mooy yëglekaay bi loolee neex ko moo taxit ñëw na ci xëtt mu njëkk teg ci ki nga xam ne mooy attaquant sénégalais bi sunu làmb moom li mu teg ci taabal ji Bombardier rëg-rëg ñaari ponkal yi mag ak ndaw mag doole ndaw ji nga xam ne ñoo nar a jaxasoo loolee nokk combat boo xam ne bu nar a am solo la combat boobee taxaw na temm fi mu toll nii kon lamb gi sàjjeeti na jërë ngeen jëf